Euh, merci encore euh, une fois ñu ñëw ak yéen ci émission bi nga xamné modi actualité sportive euh, ma siy andal sama doyen El alias Magne nuy naa la. maa ngi lay fay soxna Ndeye Yassine di nuyu les téléspectateurs de la télévision VTV muy télévision Diourbel te Diourbel yooyu yëpp taamu ko di di ci am li nga xamante moy mooy actualité sur le plan des sports, ak li nga xamante moy culture tey nak ak politique. Euh, tey nag ñu ngi wax ci li nga xamante ni mooy rubrique bi nga xamante ne di wax ci tàggat yaram muy sport kon de yaas damay bàyyi rek nga ñëw ci sommaire bi wax fi ñuy tàmbalee. mi ngi ne noonu tàggat yaram yéen ko doon laaj tey nag ñu dooree ak li nga xam ne moo di handball alias U18 yi ñoom naka ña ngay waajal li nga xam ne moo di challenge trophy mondial. Euh, challenge trophy mondial la ñuy waajal ñu ngi koy defee ca Macédoine fu lañu koy jongante Sénégal nag U18 yi nga xamante ni euh, doon nañ tàggatu euh, ñoom it dañ dem ci li nga xamante ni moom mooy challenge boobu te it mën nañu wax ni c'est mondial waaye liñ ciy takk rek moom mooy ñoom ci pul beeba la ñu nekk muy groupe beeba nga xamante ni mun nañu wax ni Corée du Nord mu nga fa ki nga xamante ni aussi mooy Iran mu nga fa Ouzbékistan mu nga fa kon yooyu ay match loo xam ne Sénégal dina tase ak ñoom pour ñaari équipe nag ñoo war a génn groupe waaye nag ñun li ñu gën a soxal nag euh, bokk na ci tamit doomu njaareem bi nga xamante ni euh, moom it jël nañ ko mu nga xamante mooy Assoumane Mbaye doon handball fii nga ni moom mooy euh, Médinatul handball club ci Diourbel ñu sélectionné ko ci bi ni tey boo demee ku ci mel na coach Adjuma dina ko boo demee ku ci mel na ñoom Doosa Mbaye ak yeneen xale yu jigéen yi nga xamante ni ñoom la daan basketandoo ñoom Nogoy Ndiaye très bien ñoo ñoo ñoo daan bokk équipe di handball mm-hmm. tey defe naa ni am nañu leen neex parce que seen benn naataango jël nañ ko l'équipe nationale handball te dem na li nga xamanteni euh, presque mën nañ wax ni mondial la euh, bu li nga xamanteni mom moy euh, coupe du monde ci challenge trophy mondial fele ci macedoine lañ koy jogante mi ngi noonu ñu koy encouragé moom Astou Mbène Mbaye alias ñu ñëw ci li nga xam ne moo di beach soccer équipe nationale bu Sénégal daal dinay daan équipe bi nga xam ne moo di Cameroun ci neuf bal ci benn. waaw muy ci li nga xamante ni moom mooy euh, pratiquement éliminatoire coupe d'Afrique yi euh, ci li nga xamante ni mooy beach soccer woo ko léegi Sénégal nag da cee xarañ ndaxte moom moo mu jël coupe bi. Mm-hmm. Euh, moo téye tiir bi moom nag fekki woon nag ki nga xamante ni moom mooy Cameroun waaye da ko wulli wulli yoo xamante ni jéggi na doyo parce que juróom-ñeenti bal euh, ci ben lako daan muy 9-1 muy lo xamanteni defena ni pour Cameroun dabé ko dina metti parce que après mom mo wara a fi ci Sénégal ci match retour bi waye dal Sénégal woné na boppam ci match boobu euh, daan li nga xamanteni mom moy mooy euh, juróom-ñeenti bal ci ben équipe bi nga xamanteni mom Cameroun. Toutes nos félicitations à nos lions du beach soccer ñu ñëw ci CAF Awards ba nga xam ne ma doon am ca Rabat ca Maroc Sénégal nag daal di fay def jaloore bu rëy maanaam juróomi raaya la Sénégal gagné foo ko keroog foofee ca réewum Maroc. waaw gars naan ko razzia ñeneen ñi naan xuuf baax euh, mu nekk loo xamante aussi c'était prévisible. Mm-hmm. Euh, waaye li ci gën a impressionnant mooy li nga xamante ni euh, doon nañ ko xaar. muy deuxième ballon d'or Sadio maane parce que El Hadji Diouf moo plafonné woon affaire bi euh, yóbbu ko fi nga xamante ni moom mooy ñaari ballon d'or muy double ballon d'or bi nga xamante ni El Hadji Ousseynou Diouf jëloon na ko euh, jamono yi nga xamante ni mi ngi nekkoon euh, diggante équipe bi nga xamante ni moom bu Metz ak Liverpool. kon dañuy jàpp ni loolu ca jamono yi 2002 mu teg ñaari at maa dàq football ci Afrique loolu nag dañu woon ban joru Sénégal moo koy dindi te lañ cay jàpp Ndeye Yacine mooy. avant sax El Hadj Diouf di ko jël amul sénégalais bu ko mos a jël. Mhm. sénégalais yàgg nañ fi jooytu ballon d'or ay Eto'o di ko jël ay Drogba ay Salif Keita joueurs yu mag yooyu xam nga ay Rabat Matière ñoo ñëpp jël nañ fi li nga xamante ni pratiquement moom mooy euh, ballon d'or africain mais Sénégal malgré que li ma ci ay joueurs xarañ ñàkkuloon football kat parce que bu ñu xoolee jamono yi ñoom Yatma Diouf euh, jamono yi ñoom Alpha Touré ñoom euh, ki nga xamante ni moom mooy. Christophe Sagna ba ñëw ci jamono yi ñoom Léopold Diop ñi nga xamante ni aussi ñoom mbay Fall ñëw ci jamono yi ñoom Baba Touré ñoom Moussa Ndaw Oumar Gueye Sène Jules François Bocandé ay Karim Seye El Hadj Modou Keita Félix Gomis ndaanaan yooyu nga xam ne ay jinne lañu woon ci football euh, Fungor Sarr ñooñu kenn mos see jël li nga xamante ni moom mooy ballon d'or te ràññee ñoom ci li nga xamante ni moom mooy si le plan mondial euh, doomu ndar boobu ne di El Hadj aussi ñëw fi en 2002 teg deux fois jël ko. ñu ne nag lii kenn moo ko fi defati waxuñu ku koy jël sax mais kan moo koy dub doublé euh, doomu bambaale bi nag moom ren doublé na ko jëloon na ko daaw nu euh, gis tamit lu rafet El Hadj Diouf ko keroog bi ñu ñëwee bi ñu annoncé ni Sadio Mané moo jël ballon d'or El Hadj Diouf dafa tëb dafa yuuxu kontaan jubilé woy woy bi nga xamante ni chaque jour dañuy dégg supporter waaw bojo bojo yee waaw mu ngoog ko fa ba ñëpp di ko xool assistance bi di reetaan mm-hmm. euh, Sadio aussi def lu rafet parce que après El Hadj la woo moom la woo bi nga xam ne moom la woo ni ko mhm. grand frère ñëwal alaaj Diouf ñuy yëg ci plateau bi kon loolu mooy li nga xamante ni moom mooy euh, am mu nekk lu rafet loo xam saajo Sadio Mané def na ko waaye saajo aussi def na discours bu rafet nee na yemul foofu maanaam bëgg na jël ñetteelu ballon d'or waaw loolu la wax parce que j'ai faim pour maanaam parce que ballon africain bi euh, ku Yaya Samuel tout dafa mel ne euh, jël nañ ko mm. ñeenti yoon mm. donc pourquoi pas ki nga ne Sadio Mané jël ballon d'or bi euh, ba

waxtaane ay milliards ay xale yoo xamante ni aussi mën na composé ak ñoom euh, jàpp nañ ni daal mën na fa décrocher li nga xamante ni mooy euh, titre li nga xamante ni ballon d'or malgré que dugal na fa euh, étant donné dugal na fa li nga xamante ni pratiquement mooy biom bu njëkk sur penalty yi ñu jàpp aussi ni Aliou Cissé moo jël meilleur coach Cissé Ngaari Njarmeew euh, moom mi gagné li nga xamante ni mooy coupe d' Afrique des nations bi qualifié coupe du monde euh, moo jël li nga xamante ni meilleur entraîneur ci Afrique mu di raaya bu am solo boo xamante ni moom it dañ koy félicité euh, ci constance am te ndeyaas lu ne dégg na ko Aliou Cissé. Mhm. lu ne dégg na ko ci coaching bi mais. tey jël na coupe d'Afrique qualifié na coupe du monde euh, muy ñaar yoon muy qualifié l'équipe coupe du monde ba pare gagné li nga xamante ni pratiquement mooy meilleur entraîneur Pape Matar Sarr jour révélation di xale bu xarañ di doomu Thiès euh, moom it euh, gis nga li nga xamante ni wan na ko ci li nga xamante ni mooy football dernier match yi Sénégal livré ci éliminatoire yi gis nga li nga xamante ni stade Maître Abdoulaye Wade la mu fa wane ci xarañ ak tout football ba tey ñu jël ko meilleur révélation ci li nga xamante ni moom mooy Euh, pratiquement euh, football bi euh, kon dañuy jàpp ni équipe nationale jël aussi meilleure équipe ci Afrique meilleure équipe ci Afrique classement FIFA bi sama di nga ci ñëw léegi wax li nga xamante ni noonu la tëddee muy classement FIFA bi Euh, mi ngi classement FIFA jamono yi nak le Sénégal occupe la dix-huitième place euh, nek tamit première place occupé première place bi ci continent africain euh, mu nek tamit jaloore El Mansour ndaxte bo seetloo équipe bi di Algérie ak yi nga xam ñoo di Cameroun ak Tunisie ñom ñoo ëpp lu ñu doon nek première puissance africaine ci football bi waye jamono yi Sénégal dal mo nek ci bopp El Mansour Sénégal mo jël li nga xamanteni moy 18 dix-huitième sur le plan mondial Euh, jël li nga xamante ni moom mooy euh, premier place bi fii ci biir afrique mais liñ ci jàpp moom mooy euh, dafa mel na yaas brésil ba tey moo nekk ca bopp ba ba léegi brésil nag moo occupé première place mondiale ci classement fifa bi waaye it équipe bi nga xam ne moo di belgique yaakaar naa moo nekk en deuxième position Argentine monte top topp la France arrive en quatrième position euh, suivi de l'Angleterre cinquième Espagne sixième euh, l'Italie vient en septième position suivi des Pays-Bas huitième euh, neuvième Portugal suivi du Danemark dixième place mondiale El Mansour kon mi ngi noonu loolu li nga classement FIFA bi nga la fédération internationale de football génne nañ ko kon damay bàyyi rek yaas ñu dem feneen ci beneen sujet Euh, mi ngi noonu ñuy ñëw rek ci match amical yi nga xamante ne ni jamono yi war na am mu mel ni nag Arsenal war na janoo ak les Blues Chelsea bu Edouard Mendy. waaw boobu football nañ ko démb ba Arsenal daan ko ñeenti bal ci dara. Euh, ñuy wax nag ni fi mu nekk nii dañu noyé li nga xamante ni mooy Edouard Mendy euh, parce que ñu commencé jël ci bi bari na waaye ki nga xam ne aussi mooy Kalidou Koulibaly apprécié woon nañ ko seen première rencontre bi. Mhm. mais bii moom jàpp nañ ni euh, affaire bi xaw na gàllu gauche xam naa ne fi mu nekk nii dañoo taxawagul euh, par rapport ak vacances yi ñu jógee ba nga xamante ni euh, équipe bu Chelsea bi na ñeenti but diggam ak équipe bi nga xamante ni Arsenal waaye Arsenal aussi nekk équipe xam fan yi dafa taxaw am ay xale te ñoom it dañoo commencé li nga xamante ni mooy seen camp d'entraînement yi ak seen match amicaux yi. Euh, mi ngi noonu match amical les merengues du Real de Madrid battu par le Barça 1 but à 0. muy classico bi euh ñuko doon football ci li nga xamanteni mom moy euh match bo xamanteni dañ ko démarrer li nga xamanteni ni. Euh, pratiquement balaa ñuy saison bi di démarrer mun di ko nekkoon di nga Real Barça ñu football ko nag 4 heures du bi mu nekk match bi nga xamante ni moom mooy euh, les Catalans muy euh, Barcelone ak recrues yu bees yi ay ñoom Lewandowski ay ñoom Raphinha ñoom ñoo mujj daan match bi li nga xamante ni moom mooy benn bal ci dara Raphinha sax moo dugal bii bii bu rafet boo xamante ni c'est un but d'anthologie bi nga xamante dugal na ko ñu jàpp nag ni match ba bii ba 27e minute la dugg waaye nag ca topp yëpp raay mënul fexe ba mettre les pendules à l'heure ba égaliser ba match ba noonu la jeexee kon mën nañu jàpp ni Barça défense bi ren am na lu fa nekk euh, waaye tamit Real doon na jéem répliquer mais mujjul jëli li nga xamante ni mooy bal boobu mu nekk 1 bi à 0 diggante Real Madrid ak Barcelone. Euh, beneen match amical les Bavarois du Bayern de Munich ñoom nag équipe bi nga xam ne euh, moo di Manchester United daf leen dóor benn bal ci dara. waaw muy équipe bu Cristiano Ronaldo United euh, ñoom dañ doon jouer ak ki nga xamante ni mooy Bayern Munich équipe bu Sadio Mané waaye nag United moo leen mujj daan 1 but à 0 ci match amical boobu ñu amal di waajal li nga xamante ni moom mooy saison bi nga xamante ni mu duggee ci mois d'août bi à partir du 5 ak du championnat yi muy. Allemagne muy fi nga xamanteni moy Angleterre muy Italie muy France ñu mëna review li nga xamanteni moy football bi euh ci li nga xamanteni moy Europe mais dans le monde entier aw euh, mi ngi nonu ñu ñew nak ci actualité navetan ci diwanu jurbel mu melni nak jamono yi mercato bi dafa taxaw tem rek gaaya ngay dem di changer club entraîneur yek joueur yi alias waaw ñewon nañ ci lu bari ci li nga xamanteni mom moy changement yang may wax rek entraîneur wogin euh, di dali ñu joge na wogin dem paris

Euh, moom mi nekkoon ñaay def fa trois ans. Kaka euh, Mboub Kaka waaw moom it ñu koy mhm. wax Fallu. Euh, moom it jóge na fi nga xamante ni mooy équipe bu ñaay dem lakkale maanaam def ce sot sotti parce que ñaay ak lakkale benn la kon moom aussi dem na lakkale wala yu football ci li nga xamante ni moom mooy saison ci biir nawetaan yi. ma amoon benn laaj rek moo ma la bëggoon laaj jëm ci mercato bi ñu gis nañ est-ce que dina yomb euh, joueur bi nga xamante ne nii ci koñ la juddoo màggee fa yaroo fa dooree fa football fa toj ko euh, jóge équipe boobu dem ci beneen équipe di fa football wala it entraîneur bi nga xam ne ma jël exemple ki nga xam ne moo di Daly nekk un pur produit de Woggin euh, jógee Woggin dem di entraîner ji fi nga xamante ne nii moo di Paris ndax loolu nekkul loo xamante ne nii alias gars yi war nañ ko éviter. waaw japp nañ amna ay aspect aspect bu ñëk mom féké da nga fa joggé pour sa propre gré pour dem rek pour bëgg football yi la mo mën duma d'accord ak yow nga bayyi sa koñ parce que tay mo dëkke wogin han euh dem di coach équipe bu nekk kër gu mag manam bu bo démé stade bu match bi tassé ñan ngay andal ñibi ñan ngay andal ñibi mo jaaxal ñëpp wa wogin ngay andal ñibi do ñibi kër gu mag da ngay da ngay jël tel bi and ak wa wogin kon déjà lool rek wané nako kon jàpp nañ ni aspect boobu moom fekkee da nga fa jóge ak sa propre gré ni waaw damay jóge ci équipe bi dem non sa équipe lu mu métti métti am na jour yoo xamante ni euh, da ngay waaru maanaam seen équipe ba ñu nekk mosoo dégg ñu ni jóge na fa euh, buñ ci jëlee exemple euh, comme am na joueur yoo xamante ni fañ leen xamee woon ñu fa doon fubal nawetaan fa lu ñu fubal ba retraité boo demoon tey lu mel na Grand Diourbel nga xool ay ñoom Ansoumana Ndiaye xool ñoom Maratal. ñooñu c'est des pires produits de la Saxandal ay globo. jaaja jaaja baas ay globo ay globo waaw ay ñoom jaaja baas bu walidaan ñooñu maanaam seen équipe bu koñ fa la ñuy fubal boo demee Wogin ku mel ne Omar Sané. ñooñu Wogin lañ ay Makhoudia Ndiaye Wogin lañ mos a boo demee aussi yeneen équipe ay HLM da nga fa fekk ay joueurs yoo xamante ni euh, fa la ñu dëkk fa la ñu fubal ba seen carrière jeex boo demee tey jëm si yàlla Bakary. Eh, eh, bu équipe bi nga xamante ni mooy bu jàkkaarloo jàkkaarloo la mos a football xanaa budul dañ ko recruter yóbbu ko ci ay phase nationale mu football kon jàpp nañ bu fekkee da dem pour sa propre gré loolu baaxul da ngay toog défendre sa couleur koñ mais dañuy jàpp aussi ni bu fekkee koñ bi da nga dem aussi bu fa problème wala équipe ba wala indiscipline am nga bëgg fa jóge te bëggoo bàyyi espoir bi am nga droit dem beneen équipe coach ko mais jóge fa daal pour sa propre gré loolu defe naa di yaas moom moo rafetul Euh, mi ngi noonu ñu dem ca làmbi ja xam nga ni nag ki nga xam ne moo di euh, Gris Bordeaux war na bëree ak Balla Gaye 2 euh, combat bi nag mi ngi war a am 7 août prochain mbër mi nga xam ne moo di Khadim Ndiaye yëkkati na ci ay kàddu. waaw muy ñetteelu combat bi nga xamante ni ñoom ñu ngi koy tase diggante Balla Gaye numéro 2 bu Guédiawaye ak Gris Bordeaux bu écurie Fass tase ñu ñaari yoon bi mooy ñetteel yoon ba ba ñu njëkkee tase dañ dañ dañu match nii ndam demul ndam dikkul kenn daanul. Euh, deuxième combat bi ci la Balla gay am victoire ci ay points lako amé euh bi mooy sen troisième combat mu nek combat de la clarification combat bi wara a manam ni japp morom moom yëkkati ko dóor mu teud wala nga door ko mu daanu combat bi manam am na mbër yoo xamante ni li balaa ñuy xam ni mbeur la nga japp mbeur daaneel ko kon giri ak Balla combat bi il faut kenn daan sa morom le 7 août lay doon mais un ancien lutteur un cogneur muy Xaadim Njaay ku nekk xam nga demoon nañ mu tudd ko le boucher parce que daan dóor muy nàcc moom nag yëkkati nag kàddoom nee na giri bu amee fulla ak fayda combat bi dafa war a xeex ak Balla Gaye giri nee na bi euh, du moins Xaadim Njaay nee na daf ko war agressé le mot agression sax la tudd maanaam nee na Gris dafa war a agressé ki nga xamante ni mooy Balla Gaye pour gagner combat bi waaye bu ko agressé yaas la mu fay fekk la nga xamul parce que Balla aussi xam nañ du ragal te mbër la boo xamante des fois boo koy jéema doo day duwaloo jàpp te aussi def na déclaration semaine bee nii deux minutes la may Gris pour daan ko Gris ni ko maa la mën kon jàpp nañu le 7 août daal Sénégal ñuy xaar combat bu neex euh, ci diggante ñaari écuries yoo xamante ne ay ndaanaan mbër yàgg nañ faa génn muy écurie waay mais aussi li nga xamante ni mooy écurie Fass kon jàpp nañu combat bu neex la waaye la ca aussi nañ ko jàpp mais giri bu bu at bu agressé la mu fekk defe naa ni xëy na xam na ko Balla aussi xam na ko mais jàpp nañu il faut kenn daan sa morom. Euh, mi ngi noonu ñoom ñaar a ku mën dinañ ko xam le 7 août incha allah ci combat bu mag boobu ci diggante euh, Balla Gaye numéro 2 le lion de waaye ak ki nga xamante ni nii moo di la tigre de Fass euh, Gris ki nga xam ne moo doon Tafa Gueye waaye te moo doon ki nga xamante ni nii moo di mbay gay bu Fass alias mu mel ne nag actualité sport tey lii lañ leen indiloon. waaw Actu Sport euh, loolu ñu leen indiloon ci wàllu yi nga xamante ni mooy tàggat yaram ci biir semaine bi gannaaw championnat yi tiddeeguñu muy fii ci biir Sénégal muy ci Afrique moom aussi dans le monde euh, xëy dañuy def ay ramassage rek par rapport ak li nga xamante ni mooy événement yi xew mais dafa naa dina gën a yaatu ak li nga xamanteni moy mooy émission mag bo xamanteni moy grand format euh, te it man ak nday yassine ak Doudou Thiam di len ko présenter euh, fi ci télévision VFtv ñu ngi jaajëfal les les téléspectateurs yi nga xamanteni ni ñoo doon seetaan émission bi di remercier aussi fallu suñu technicien di jox gars dox dajé ci benen numéro sur la télévision tv Diourbel ca kanam